ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi euh, dañu déplacé woon ñëw ba fii ci yëmbal géejawaay mën naa ne caaro yi yaa may dégg ñëw seet si euh, un espoir une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence maa ngi toog ak euh, Pape Trace Pape Trace bu école de jimboor yi moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan mbër mi nuyu naa la. maa la siyaar. ci loo ne. sant bu wér. na kay tey. ay sant yéen rek. yaa ci kawam yaa ngi ci kawam waaye. looy ree nii comme la ñu dund mais tamit damaa kontaan tamit waaw parce que tamit su ma ñëwaatee caare tamit ba gars yi xam nga jaay yem tamit daan ma tamit damay kontaan rek waaw noonu la demee. mission bi. mission bi waaw continuer mission bi. rek. Euh, Pape euh, déjà euh, sa ak làmb fan la tàmbalee. waaw sama histoire làmb moom yàgg na. maanaam fu mu tàmbalee Pape Pouye moom moo gën a dugal si làmb sama benn mag bu ñu naan Pape Pouye waaw moom njëkk a dugal ci làmb moom njëkk a jox juróom-ñaar na ma dama làmb Pape Mbër nga bindu fa moom demee ba def ba jox ma goros suukar ak benn paquetu biscuit maanaam da jël ko waaw ñu jox benn goros suukar ak benn paquetu biscuit léegi nag ci laa commencé nag léegi nekk équipe lan saane non fii may changement fii may ma pafal fu mu nekkoon xam nga léegi nag léegi ah, ma nekk fa nag xam nga mag ñoom waaw ah, mag samay grand yoo xamante nii waaw mooy loolu quoi xam nga tambale. laa par la suite nekkoon nga école de li Lansane Lansane waaw fa laa nekkoon parce que boo xoolee sax foofu laa gën débuté ci wàllu mbapat ak yooyu yëpp waaw noonu demee euh, bi ngay mbapat est ce que mën nga dellu si waat ci parcours bi ñaan nga fi bëreel waaw fii ñu fi na ci mbapat na parce que ay bu wal bu écrit écrit daara ji daara ji bëri ngeen dëggoo ji am na ñu bëri ñoo xam sax laa xam ne kenn gisul jële bi laa xam ne. fan la woon. fii stade Ndiarème gii. nu mu demee. boobu ak tournoi nañ tegoon. maa ko daan jële bu rëy mbo deuxième paie laa ko yóbbu. yaa bu bu bu bu daara ji. bu daara ji boo ko laajaatee tamit carrément ñu wax ñu si yàlla si Macky. waaw doxoon nañ seen combat. mu dul sotti. Eh. waaw maa ngi fii nii mooy ci bayal pambar bi fii. nu mu demee. boobu booba ma doon moom ah, dañoo bëri quoi lamb ji metti kenn mënul daan sa morom. léeg-léeg léeg-léeg ak ci la wécc tëggee combat frontière ak kii nu mu tudd Pathé. Pathé waaw Pathé a Pape Thiam numéro 2. Pape Thiam ci la ko tëggee woon nag. au stade Ndiarème voilà. mais boobu man nag man yàlla dogal na nag xam man man léegi ah bëree ma ci woon quoi parce que boobu nag léegi ah, bañ demee seeti mbër nag mbër moom xama yow ah yaa ma gën a xam mbëri léegi nii. fekkee naa lépp mais xam nga ñiy seetaan ñi seetaan ñoo tax may laaj euh, euh, mbapat bi nga bëri woon grand combat fële terrain daaru euh, Thiaroye. man ak Balla Junior waaw boobu benn maire ko tëggoon maire mi ngi woon suñu dox fii boobu kii la woon ah, drapeau suñu Modou Bousso lay mhm. waaw boobu la woon quoi waaw boobu nag boobu nag boobu noonu mu ne sama premier combat boo xamante ne mu nekk grand combat waaw boobu boobu la woon gàddu drapeau bi andi xatal caare kaw ko yëpp lamb ji matul sax instant dama ko li dama ko lalli sànni ko lu may dawe du ñëw rek dëgg ab balaa du koy bif daay tëdd dëpp. mais lan moo tax arène bi gars yi gis ñu la ci. waaw mais arène bi nekkoon naa ci def naa ci ñaar ñaari sorties waaw. nga jékki-jékki toog des années. waaw toog des années boo boo xool nag lépp ay mission la woon rek. waaw parce que tamit man lu ñu ma wax kenn tamit ku ñu ko wax tamit foo jaar di nga bàyyi làmb parce que euh, sama làmb ñu mujjee bëri fii Esat Ndiarème mag Toro mooy bu nekk écrikaay baax. boobu lam sama benn rakk moo toog fàllu ba ah, moo toog cumbukaay quoi ba ñaan fàllu fàllu jour jooy jooy métti parce ji kenn daanul par décision arbitre la léegi nag mu ngi jooy jooy métti léegi nag léegi maire bi na ko waaye yooyu léegi ah, na ko xamal rek la combat bi métti ñu tegal combat bi mu saan combat bi nag ba ci biir ma nag mën na ko nag léegi nag léegi fi mu waaw maa ngi koy fàttali waaw man ak boo ñoominka la ba nekk écurie Kër Massar. boo ñoominka boo ñoominka nga bëreel sa premier combat dans l'arène. lamb jooju bëri gis ñu jël sax. fan la woon. stade Ngor. stade olympique bu Ngor. nu mu nu mu demee. boobu dëggoo ma xanaa boobu dama ko teg ans di ko dóor mbot muy daw di jéggi rek léegi ma daal ànd ak moom plaqué. plaqué ko. Mm-hmm. da ko da ko dóor ans. dama ko dóor ans muy dawee nag léegi léegi pour wëndeelu noonu rek léegi balaa koy plaqué ànd ak moom. waaw nga koy bloqué foofu léegi daal koy plaqué mu tëdd jaaxaan ma romb ko. nga romb ko lamb ji yàggul sax. ok lamb jërëjëf Serigne Touba la rek mu jeex. jërëjëf Serigne Touba. waaw loolu rek la woon. Baye Fall ma. te fi mu ne nii bu ñëwee bii mooy gën a pire parce que lu tax. non ñëw ñëwaguñ ci bii dèjà deuxième combat bi nga daje ak euh, Toro. boobu euh, tamit gars yi doon xaar nga ñëw. Hmm. confirmé parce que sa premier combat ngor la woon. deuxième combat bi nga war ko bëre fii ci Guédiawaye euh, au stade Ndiarème hmm. gars yi di xaar nga ñëw confirmé mais jour boobu. waaw parce que xam nga man lamb joo xamante ni dëgg la nag parce que boo xoolee tournoi moo gën a metti tournoi moo gën a metti parce que tournoi da ngay dem doo xam ku ngay bëreel mais lamb suñu Modou Niang dama xëy de mën ko a waaw mën mën ko yàkkale mënom yàgg tóoro musuma gis tóoro tóoro boobu moom ba mu ma naan kii moom ka la war a bëreel kii ku la war a bëreel man lamb sëñ Modou Niang banlieue des fois da ñëw ba ci jour ngay xam kan ngay bëreel noonu la demee nag xam nga lamb ji nag lamb ji ma metti xam mané ne garaawul quoi baa ma gérer ko ba ñu bari foogoon nañu sax man fi ni ne xam nga lam jooju noonu man ma at waaw damay mujjé bay wax quoi pour daan ma leen fii moom sama koñ la essan njaaram gi mako mom parce que ci parce que fofu victoire la fa jugee kon du yoon ma fay ñoo xam nga di daanu non non daanu ma daanu mais lan mo la xañ sur bobu lan mo marché wul lan mo dox waaw bobu nak numa ko préparer la parce que xam combat bu la am nañu koy préparé parce que bo xolé mak bo ñëwee nga dama gis adversaire bu may bëreel ci Pape Thiam laa ko entraîner xanaa xam Pape Thiam Pape Thiam men waaw léegi nag maag Tóoro gisante wuñ mais teewul dama doon boole poids léger ak poids lourd contact ak ñoom mais lu ma doon contact ak poids léger ëpp lu ma contact ak poids lourd parce que làmb ci nekk ak tamit ak boo xam ne tamit yële moom dañ lay entraîné te te kon bi ma dëkk ñoom benn ñoom am nañ cinq cent boo xam te ne ku ci am combat bi ñëpp dañuy dem ko ñu mbër mi xool mbër mi. non sax koñ fii nag moom làmb dafay yàgg am doole parce que déjà al diwaan dem si yàlla si diwaan fii la dëkkoon n'est-ce pas. Euh, Ron mu sañ Fallou. kenn dootu ko présenté ci làmb yaa ngi may dégg ay ñoom papuy ba ci ñoom ñoom euh, bébé diwaan ñi fi ne di ko di ko représenté mën naa ne làmb dafa yàgg am doole fii ci koñ bi. waaw dëgg la parce que lu tax fii caare kaw la. ana kii ana ana Bada Ndaw. Jali Jali Ibrahima Sot numéro 2. fii caare kaw la Jali mi ngi fi mais xam nga caare ko fii làmb dafay sookee ko parce que ñun dañoo am ay grand yoo xamante ni lu mel ni rumb suñu fàllu ndeysaan mooy suñu dem si yàlla ci diwaan kooku boo ko waxee rek daanaka yow ah, da nga tëj làmb parce que kooku amul lu mu deful ci làmb kooku maanaam boo xoolee man sama jëm bopp topp naa ko fu nekk dem ci làmb tey jii nii kooku noonu tey mu duggee ci làmb ginnaaw yàlla moom moo gën a tax parce que man sama première man man boo xoolee mooy doo gën ci làmb fii tey ñu bëri fi mu ne kenn xamoon Pape Terrasse ñu ma xamee woon diwaan nañ ma xamee woon parce que moom ma téye na ma par force ngay doon mbër waaw ñu jóge ay ñoom Baye Mbaye ay ñoom Pape Mbër ay ñoom Xaadim Salaam ñoom Mame Balla. salaam Lat Dior. Lat Dior Mame Balla Mame Balla top 5. Mame Balla top 5 mi ngi woon fii tout près. Bébé Saloum mi ngi woon fii tout près. mi ngi noonu nag te man écrit lan sànni lu ma fa jëlee damaa déggoon écrit mooy euh, moom heure contact bu ci daan daan teg par junni ko daan jël bu gars ma bu entraînement jeexee junni lay teg léegi sama mag bi papu yi na ma de ah man de écrit bu man nekk de gars yi junni nañuy teg bu entraînement bi jeexee mais Bébé Saloum moo ko teg pour ko daan rek jël ko ma ne ko ah mënoo waaw ma ne ko garaawul premier jour bu ma ñëwee dama ko daan <laughs> barke alxuraani karim boobu sama benn grand bu dëkk bi bu ñu naan bu ñu naan yeyaa ah moom ma yëkkati encore 2000 francs am joxaat ma na ma foog moom ba xam mën nga leen mën na ko man de ñàkk ku ma jàppale moo tax. ñàkk ku la jàppale moo tax nga nga rek ci làmb. waaw loolu tamit loolu tamit ci la waaw. mais instant bi prêt pour le retour. déggoo ma xanaa fii instant bi nii man rek nañuy déglu fi mu ne ah, yi instant bi yow kese la ñuy déglu. instant man rek nañuy déglu fi mu ne nii. pour le retour man fi mu ne gars yi mën rek nañuy déglu. instant bi mën naa ne te mu wax la benn affaire ñu topp sama ginnaaw ñoo bari te caare kaw daa war a amaat futur boo xamante ni kenn du ko téye. un champion. déggoo ma kenn du ko téye. te champion bi war a kaw jàpp nga ni Pape Trace boo bëggee dégg rek nga lu mu doon bi yoon faxas joxos lay doon. ok faxas joxos kenn duñ téye. personne bu dee bëri am nañ ko bu dee am nañ ko te am nañ ay grand yoo xamante ni lépp lu nekk ci ñoom dañ ñu koy jox lu ci mel ni rëmb suñu fàllu

ñoo may wax rek ñoo naa ma kii nga war a bëreel ma bëre kooku. mais yow xamee woo say potentiel adversaire. amul kenn ku may tànn. wala da nga ragal booy yi. non ku ci ti ñëw. di nga xam ne kii nii kat caare ko la jóge mais boo ragalul booy yi tuddal man ne man nañ ma jox diw ak diw ak diw ak diw bu ko defee man danga may yombal affaire yi promoteur yi aussi day gën a yomb pour ñu démarrer sa combat. c'est nga turu fii maanaam fii nii boo xoolee noonu la demee nag waaw. <laughs> may mu tuuti rek sa adversaire kan la. noonu la demee parce que ay ñoom boo xoolee ay ay waaw ay ñoom Koña ay ñoom armée waaw ay ñoom armée bu yëmbal ay ñoom Boy Diop. Boy Diop ñoom ñëpp ñoom ñëpp sama adversaire lañ. Boy Diop xam nga ko. waaye dëggoo ma xanaa ñooñu mag ñu ñu rob bokkuñu affaire. Boy Diop bu benn baraak xam nga ko Boy Diop bu benn baraak. xam nga ko ci bëre. waaw seeraan naa ko ci làmm. seeraan naa ko xam nga ni xam nga ni ndaanaan la. ndaanaan la mais bu ñëwee fekk ndaanaan boo xamante ni mën na ko tegal lépp jàngal ko ko na ko nii nga war a def bokkul sax caare ko laa dëkk. yow yaa wax loolu. bu baax. maanaam bu jëlee sa avance du ci génn.